fan la teg ni sa waay nangul jël eh, eh, ah, avance. kay la ko ma tëri. si jëm bi nga xam ne avance na maa ko doon ñaan ngir yàlla a jël avance. xanaa a laa ragal. kii nag yàgg na. ñu ngi wéri jàng daal kii damaa ragal kii si laa lay waatee. ak ay gis ma laa tudd. man ak ay gis laa tudd. eh sëñ bi xool ma. dañoo yem dañoo samp. mais rek sa waay nee na kubum bin la jigéen. kaa taxaw ni rek gis kaa taxaw ni. ma taxaw ni rek sa waay nee na kubum bin la ko yor dégg naa loo koy jox ay engrais saa yaa. kii ma la ma la jox ma la ko jox sa ji ay sànq. kii xool ma kii xool ma xool ko kii xool ma kii xool ma xool ko. kii bariwul kii bariwul seen saalu mbàkk maa ngi tax a bëri. kii bariwul si si bëri fenn. saa dafa am benn yóbbante bu ma wax. nee na dalaa wóor yàlla ngir yàlla dina jëlee avant. waaw bu ma mën a sant man de ak moom tollu wuñ ñu ko man si làmb laa ko fekk amuñu ko déglu man si làmb laa ko fekk laaj ko amul kii bi daal amu ko si làmb amul carrière làmb. waaye loolu. man kii daal bu ma xam man ba may bëre kii boobu ci lan nga jugee man ci dëkk waa laa jugee man Mamadou Mamadou toj naa ko fi. te amoo victoire. xanaa Mamadou Saloum. Mamadou Saloum toj naa ko Mamadou Mamadou toj naa ko. kii waaw ay ay ak man li li dox si sama yaram xajul si kii saa man kii soo ma yeewoon léegi si Pawla ma bëri moom. ah kon pare na mu góob léegi neex na léegi nii la kay taxaw nii léegi léegi buur event dama bëgg buur nga ñëw yaa jiimaan ana ji ana ji jiimaan kaay damay jël buur buur kaay la ñu buur kaay la jiimaan day jël jiimaan ñëw ñëw ñëw ñëw jël ci ay kàddu sa waay di remercier di waay mbokkam kaay maa ngi sama mbokk nag di yow ñëpp daal ma kenn di oo sama mbokk yi ma yàlla boole sama ñaaw la yi daal ko wala yi ñoom nga xam ne ñoom laa nekkal bu ma jógee ñu jóg jël seen i wala yi dóor ko si àll bi dóor ko si miir yi waa arab yi di nuyu tamit booy arab yi booy ñoo amee góor yi booy ñoo Modou booy booy booy Baye Fall Obaay booy topp rek ma bëgg leen ma bu ma gisee ma koy jël ma koy ko baax baax boo am na di aw Bara Diagne di aw sama mbokk ñu ñëpp ñoo gën a di aw politiciens yi di aw sama politiciens yi Maodo Yada Saay ndax man moom moom mooy sama politique mooy sama lépp di ko oo